alaikum. am internet Kewolo TV dal leen ak c'est l'émission émission à la découverte mu ngi fii naan Castor HLM ñu gën ko xamé ci cité Bissap ñu fas né am ak waxtaan ak sëñ bi di wuyoo Bamba pour mu xamal ñu kan moy Bamba ak naka la def ba dugg ci li nga métier bi mu nekk Bamba maa ngi lay nuyu. waaw soxna si ñu ngi lay fay bu baax baax euh, nga ñoo wax kan moy Bamba. Wa Bamba de Ben sénégalais la rek. bo xamne ni ci rew mi la doon ci mu ngi dekk Sidi Bisaab la juddo yaro fa ba magge fa ah naka nga def ba commencer li nga xamantene moy métier bi di defar ay dal wa métier bi nak avant lolu dañu nekkoon di yëngu ci métierum am tailleur ba yàlla def ñu am problème vision ñu arrêté ko bon ba ay 2000 ay 2008 9 yalla def suñu benn copain sama benn xarit. Assane asan fay mu dugg ci mbeccum tailleur di ñaw ba ni mu bero mooy ma koy fréquenté ci atelier am euh, ci loolu noonu nag maa ngi tuggee am suñ benn xarit ba fa daan ñëw di jaay ay parfum mais après parfum yooyu muy jaay man comme dama bëggoon parfum rek su ñëwee damay dajji parfum yi di xool mu dugal ma ci métier parfum bi ne ma pourquoi pas nga commencé di ci jaay mm-hmm. ma dugg di jaay nekk ci activité yi après ci la ma bolé benen copain ñi and di dem Dakar di jënd ji ay parfum ma nek ci secteur bobu hmm ci la tok xalat comme période tu koor ñu ngi koy dugg té parfum nit ñi dootu ñu ko utiliser bu baax. hmm mané xaar ma dugg ci tandarma ci début 10 jours yi quinze jours yi koor gi di jaay tandarma yi nek ci nek ci lolu ba. Mhm. ci ci biñuy bëgg dugg ci événement bi carrément nak mané pourquoi pas mu dem jënd produit local yi diko jaay moy mbarakis yi ak carax yi. Mhm. Euh, ci loolu laa duggee euh, ci produit local bi ma nekk ni yaa ngi may wax ne ma ci métier tailleur nga dooree. Mhm. ma nga am ci problème vision mën nga may expliquer problème vision bi naka la la dikkee woo. waaw xam nga rek comme tailleur moom jamonoy événement doo noppalu. Mhm. ak sa gaay bu metti bi. Euh, loolu day yomba tax soo amee feebar bët rek day yomba yëngatu. Mhm. ci loolu nag après ci la yëngatoo ma arrêté ay entré fi hôpital nek fa ñu faj ma ma xaw tané tane reprendre at nekkaat ci affaire yi ba fin 2007 dal affaire yi wat carrément nak ci la arrêté. Mhm. top ci faju bi jaar naa fu bari nak di faju mhm. finalement ba ni comme man sam papa terre la won dama don fréquenter at les tailleurs. loolu moo gënoon tax ma ma amoru am amoru terre quoi ñaw. Mhm. Euh, li nga xamante ne mooy bi naka lay demee. waa dàll yi bon produit man liggéeyu mako sama loxo mais dama am samay fournisseur yoo xam naa ne mën naa am na am na dix ans yoo xam ne ñoo may liggéeyal samay dàll mais suñu liggéey dàll yi nag avant ma ko jox client bi man maay saytu dàll yi ba pare xool lan moo ci erreur ak lan moo ci dul erreur bu fekkee erreur am na ci duma ko livrer client bi dama koy téye su ko defee suñu fournisseur damay dem ba ci moom jël dàll bi détaillé ko ne ko fii dàll bi dafa am erreur fii lii ak lii ak lii su ko defee moom day xam ne li ma wax dëgg la ñu reprendre at defaraat beneen dàll mu soog ko livre naka nga mën a def ba ràññee li nga xamante ne mooy dàll bi dafa am erreur naka nga ko mën a ràññeewee. waaw xam nga bon dañuy wax xel bët mooy gis mais bët gisul xel mooy gis. Mhm. waaw parce xel mooy gis mooy. Mhm. parfois mun naa la romb. nga yaakaar ne maa ngi lay gis mën naa la xool samay bët nga yaakaar ne gis naa la fekk ne gisuma la sama xel moo la moo la a gis te gisu ah nag ci xel moomu nag yàlla dafa sàkk doomu aadama mais mhm. am na lu mu def ci biir doomu aadama <laughs> liñ naan yàlla du tëj euh, buntu wàccee rideau mhm. ba samay fournisseur sax peut-être xam naa ni may euh, ni may souligner benn erreur bu am ci dàll yi mhm. daf leen di xaw jaaxal mais du dara <laughs> <laughs> loolu lu simple la rek mooy bëggal lu baax xamal lu baax te it li ngay li nga bëgg di ko utiliser day ko jox say client moo tax man et comme man da yàlla dafa def ne sam papa ci métier am ouvrier la mm-hmm. mu nekk ku mën a ñaw koo xam ne ni <laughs> ñawam dafay jaar yoon ak finition yooyu noonu ma màggaalee ba nekk ci mag mm-hmm. yooyu yëpp day des ci man mm-hmm. ba nga xam ne damay naqaree liggéeyal loolu moom may yóbbu ba ci produit yi may joxe damay bëgg mu jaar yoon nga xam ne ku ma jox rek damay bëgg xaalis bi neex na mais nga kontaan moo ma ci dàqal fuuf waaw loolu moom mooy pousser parfois yenn détails yi du ko bàyyi quoi dama koy dama koy dama koy dama koy souligner su ko defee ñu débat ci. Bamba mën nga ñoo expliquer li nga xamante ne naka ni ngay def ba mën a ràññee commande bi commande kii la commande bi commande kii la naka nga ko mën a ràññee. waaw lu jiitu loolu comme par exemple événement dama daan dem sama fournisseur jël ay modèle mhm. wàcc sur le terrain samay client ku ma wan dàll. moo la indilee par exemple cinq modèles nga tànn. après man damay damay jënd kaye noté ko mais kaye bi damay damay def ay page fii mbarakis lay doon fii caraax fii babouche fii modèle bu nekk quoi dama koy bind. même ba ci modèle su ma duggee si caraax tamit dama koy def ay cage yoo xam ne ku ci nekk sa tur dama ko fay dugal ak modèle bi. ñoo yaa ko doon bind ah. personnellement. ma man bon bindu ma mais dama am sama sama booy yoo xam ne ñoo ma koy bindal. Mhm. mun naa ci cité ku mel ne Mansour Faye sama booy la. Mhm. ah kooku moom bi ma dalee nekk ci mi secteur bi ba tey moom moom mu ngi sama wet quoi di ma jàppale bu baax. waaw mm-hmm. ah, ak ay Fallou jiite bëri nañ ay Alaaji ngoom waaw mm-hmm. ah, bëri na ay boo yoo xam ne ak ay mama Badiane sama benn jigéen bu baax. Mm-hmm. moom laa tuddee sama secrétaire sax. voilà <laughs> euh, mais boobu jamono jooju WhatsApp amagul. kon liggéey bi yombul mais bopp mooy liggéey. Ah, dañ ko daan gérer ba dal lu mu bari bari bari duñ juum ci pointure duñ juum ci couleur duñu juum ci euh, model loolu moom yàlla dimbali nañ ci quoi. ba ni euh. whatsapp duggee nag après nag mu gën a yombal affaire uh-huh. euh, bi ngay wax kii léegi yaa ngi naan ko jox ma croisé bu marron bi nag ak en tant que nit koo xamante ne amut loo xamante ne mën na gis réellement dàll boo xamante ne mu ngi fi nga ne ko jox ma croisé bu marron bi loolu naka la lay def. waaw parce que loolu dama ci yàgg nag xëy na loolu sax nekk lu extraordinaire. Mm-hmm. peut-être dama ci yàgg ba maîtriser ko. Mm-hmm. en plus damay utiliser sama xel bu baax baax baax hmm. te man yalla daf ma bindee dama organiser wu quoi waaw mhm. ah, dama lool tamit li ma gën a mhm. ci ci secteur bi tamit lool la modèle yi dama xam bu nekk ni ma koy composé mhm. parfois client daf may wo rek dama xolal mu lu rafet ma jeex benn modèle rek yónnee ko sama fournisseur ne ko modèle bi couleur sangam parfois ma am sax lu ma ci modifier ne ko lii bul ko def ko dain bande bi def ko ni def ko ni parfois mu liggéey ko mu réussir macha allah après ñu photo dugal ko ci ci ci ci kii bi ci réseaux sociaux yi. lool yëpp yaa koy coordonné personnellement wala dafa am ku la koy coordonné. bon loolu yëpp nag yàlla yàlla moom def na ne man ma lool lool loolu yëpp man maa koy lijjanti quoi. ay mhm. yàlla def na ne moom maa koy lijjanti ba ci modèle yeeg yi nga xam dafa war a am trépano yi wara a doon orthopédique ak. Mhm. yooyu yëpp moom maîtriser naa ko quoi. nga xam ne ni moom samay fournisseur moom yàlla def na ne dañ may man moom dañ may déglu quoi. ci liggéey bi. tay ji suma yëkëti yëkkati woon dàll bi ne la Bamba bi ban façon dal la. wa li charax la charax croisé la mais charax croisé bo xam dañ ko liggéey mu xoolee rebord bi ni liñ ci def ni moy trépono. Mhm. mais croisé la croisé bi dafa am languette. Mhm. languette bi mom lañ dawal ni ci kaw croisé ben bande bi def ci ben insigne ci ni mhm. gis nga ko defé insigne fi ngay tek sa tank tamit. dañ ko liggéey comme orthopédique mu nekk dàll bu confortable nii am na boo ko solee da ngay da ngay nekk en l'aise quoi ci dàll bi parce que dàll li fekk nekkoo ci en l'aise rek lu mu rafet rafet doo ko sol dàll mun na rafet nii ci gis-gis mhm. mais nit ki du ko sol fekk ne dàll bi bu ko solee da koy gaañ day métti tànkam mhm. te loolu yëpp dafa nekk ci fabrication bi parce que doublure bii ñuy doublé dàll bi fii ci biir mhm. dafa am solo lii dafa war a nooy fi ngay teg tànk dafa war a nooy loolu mooy seq tànk bi si ko defee nag dàll bi yow boo ko sol da nga ciy nekk en l'aise quoi mm. en plus tamit montage bi tamit mu yam sa tànk du seere du ëpp waaw loolu loolu moo nekk ci ci ci ci dàll bi quoi en plus tamit talon bi gis nga mm-hmm. doo glisser boo nekkee ci ay carreau doo glisser kon chaque jour da ngay gis sunu artisan yi ay jàmbaar lañ te der bi gis nga dafa set mm-hmm. du tey poussière déjà bu bu jëlee poussière nag boo yoree mouchoir boo ko fompee rek da ngay da ngay gis ay poussière bi day dañ comme ñu yàlla dafa def suñu dëkkuwaay ni mu bindoo dafa bëri suuf ak ay xeer. dëgg la loolu bu ñuy produit suñuy produit dàll yi dañ ko ciy euh, bàyyiwaale xel quoi suñ koy liggéey. maanaam mhm. environnement bi ñu nekkee quoi. Mhm. moo tax parfois dañuy def talon bi xaw am tuuti épaisseur sax pour xeer yeeg affaire yooyu comme sama classe gi ñoom. bu ñuy dox duñu yëkkati seen tànk dañuy diri seen tànk rek fa faxastalu yeeg yooyu yëpp dañ koy calculer waale ci dàll bi ko suñ koy liggéey mhm. waaw. Euh, mën mooy eh, eh, handicapé bi la dal naka nga ko dundee woon ak sa waa famille. sama waa famille franchement mu nekk famille bu baax nag wax fa yàlla parce que mënoon naa diis mais diisul dafa oyof. Mhm. ku mel ne papa jàmbaar la ci dañ daan daw di dem hôpital muy arrêté liggéeyam parfois sama yaay laay àndal fajar waaw ah, sama sama yi tamit parfois parce que entraîné naa deux fois hôpital Dantec mais ñoom wax dëgg fa yàlla jàppale nañ ma moo tax affaire bi oyof man dund ma sax du ma ko sax bàyyi xel quoi parce que environnement bi sans dépend rek mais nit ki tamit yow yaay jàppale sa bopp rek nit ñi jàppale la boo gisee sax handicap bi yëpp teewul mhm. maa ngi yëngu di def dara ça veut dire que mooy dama jàpp dama am esprit société bi dama war a participer sama contribution dafa war a ñëw mhm. te bu dee sa contribution dafa war a ñëw waroo toog di xaar ku la defaral mhm. mais da def effort parce que man produit local bii ma nekk maa ngi jàpp parce que bu gars yi liggéeyee ba pare maa ngi jël dàll yi di ko jaay kon boo xoolee chaîne bi man bokk naa ci ko bokk naa ci ñi koy doxal quoi te loolu dafa am solo te it wax dëgg fa yàlla imposé naa ko ba nga xam ne nit ñi xam nañ ma ci te bëgg nañ ko te ñu ngi koy utiliser bu baax a baax macha allah. Euh, famille bi tamit ñu ngi ciy jàpp bu baax a baax ak sama copain bii di Assane nga xam ne moom laa tuddee sama doom parce que yii yëpp tamit su amee ginnaaw yàlla moom la ak Mouride Ndiaye ñoo ci jàpp bu baax Mouride moo ma dugal ci parfum yi ba ma jugee ci parfum yi dugg ci dàll yi mais ba tey parfum yi noonu laa ci amee expérience mm-hmm. parce que yooyu yëpp tamit ay jaaruwaay la yoo xam ne jaar naa fa daal mais jamono jii nag ci dàll yi laa gën a concentré wu produit local bi. ku ne ku nekk xam nga ne xëy doon gis jékki-jékki gisatoo. même bu fekkee am nga soutien famille bi mhm. dina am loo xamante ne dina la métti touché na la bu baax a baax a baax a baax waaw waaw waaw waaw bi nag doon na métti waaw début bi moom doon na métti moom parce que xam nga ay nit lañ rek nit loo xamul mu mhm. xëy-xëy dal sa kaw moom day métti da ngay naqari deret xam nga compliqué mais après fur et à mesure bu la yàlla dimbalee xama nga après nag ci laa doon génn nag di di dem ay dem naa fi Casamance dem naa fi ci àll bi dugg ci fu bari fu melni ay Touba yëpp dem naa fa xaw sori sama sama famille su ko defee nag après da ngay am tuuti compréhension mais mooy tamit fi ma doon dem tam mu ne ñu nekk ay nit ñu baax nga xam ne soo ñëwee dañ lay boole ci seen bopp ci lépp ba ci man sama maa ngi nuyu Mamadou Modou Ndiaye mu ngi Espagne sama nijaay boobu bi ma nekkee Touba dafa ma boole woon ci léppam buy solu sax ku gisul nan nga koy laajee lan laa war a sol mm-hmm. kon ça veut dire que loolu mooy boole na ci boppam mm-hmm. yàlla def tamit ñu jaxasoo ci lu bëree baree bëri noonu ba sama copin bi Assane nga xam ne téer la day ñaw damay nekk si atelier parfois damay xalaat dara ne ko lii parfois mu ñow ba pare jox ma mu corriger ko ne ko lii ak lii ak lii lii soo ko defoon ak lii ak lii ak nii parfois ma ne ko waa lii nice waaw ah, mais yooyu yëpp da ngay xam ne bon nit ñi ñoom ñoo la ubbil rek parce que Sénégal moom doon fi handicap nag lu metti la mm-hmm. waaw faaw dëgër nag soo dëgërul rek parce que société bi. Mhm. dañuy euh, dañu def dafa am leen yàlla bindee ak benn esprit bu ñu am. Mhm. mais handicap du ci cër ci xel la. Mhm. waaw parce que fii boo xoolee handicap yi ñu ci bëri dañu am diplôme. wala lañ leen inserté euh, dugal leen ci ci service yi. ñuy liggéey parce que am nañ xel di xalaat am nañ compétence. Sénégal loolu tamit faaw ñu gën cee taxaw bu ñuy tabax. walum infrastructure dañu war a bàyyi handicapé yi xel bu baax a baax. Mhm. Sénégal boo xoolee encombrement bi am bo génnee pour nga dox fi mhm. day metti parce que <laughs> boo xoolee Sénégal ni mu tëddeewoo. Mhm. territoire yëpp voie publique dañ ko occupé. te duñu xel am ay handicap yu fi war jar jaar moo xam ku gisul la wala ku yor pousse-pousse yooyu yëpp tam dañuy ñaan état bi mu jàppale ñu ci. ak ñi nga xam ne nek nekk yi nekk au niveau du local mooy ci ñuy bàyyi xel loolu loolu tamit lu ñu soxal bu baax a baax a baax a baax la. say sorti naka lay demee booy génn da am ku lay yóbbu wala booy génn da ngay sa commande yi da ngay toog si sa kër passé say commande ñu livré la ko. waa léegi nag liggéey bi bu njëkk la gënoon a métti quoi ku mel na ay ñoom Mansour ñoom Fallou ñoom Alaaji sama boy yi. Mhm. ñoom laa daan àndal. parfois ma yónni leen mais parfois am na yoo xam ne duma leen yónni ñu dem man maa ko war a lijjanti. su ko defee man maay wàcc samay fournisseur comme yi ma lay wax rek yenn détails yeeg yenn yoo xam ne ni booy wàcc say fournisseur ñoom ñooy àndal wala ya ngay demal sa bopp. waaw ñoom laay àndal nag. Mhm. waaw ñoom laay àndal ko waaw mais léegi nag liggéey bi nag métteetul parce que comme réseaux sociaux yi. Mhm. waaw soo commandé su pare cag-cag yaa ngi fii wala parfois livré livré bi daal métteetul quoi par rapport ak bu njëkk ko nga xam ne. réseaux sociaux yi demeewul nii boobu cag-cag amul xam nga li mhm. gënoon metti daal ci liggéey bi jàll mu ngi sunu ginnaaw quoi mhm. te loolu tamit il fallait que ñu jaar ci ndax pour ñu am expérience waaw pour ñu am expérience fi mu ne nii sama dal day dem fu ne day dem fune ne jamonoy tabaski xew lu mel na tabaski nga xam ne fet bu gën a metti ci fête yi mhm. da ngay gis ñoo xam ne ñuy julli ji ñooñu en temps seen dal dafa war pare Bamba mën nga ñoo wax li nga xamante ne commande yi naka lay demee yow ak say ak ñaata jour lay durer. waaw bu dee commande yi nag nit su ma commandé daal comme jamono événement damay xool fii Dakar ngay julle wala julle woo Dakar mhm. su ko defee samay fournisseur bu ci nekk damay xam ne ma ko dama koy bind ci ay kaye yëpp bu ci nekk ma xam ne ma koy placer ba nga xam ne en temps réel dal bu ku ci war a julli ci sax daal di nga ko teel a jot. su ko defee mu des nag ñi nga xam ne di Dakar lañu nekk euh, sori wuñu nga xam ne samay fournisseur ku ci nekk su ma la joxe liggéey am naan la dañuy toog ñu waxtaan xool ñu xool liggéey bi nga programmer ko maanaam par exemple jour tel dàll yi dina pare léegi jour tel dàll yi pare ma ñëw récupérer samay dàll xam nga woo samay client ku ci nekk ma ne la sa dàll pare na nga ñëw jël si ko wala ma livrele ko mais loolu yëpp bon samay fournisseur am naa ñoom benn complicité bo xam ne nii yàgg na ñoom bu ñuy sëgg ci samay liggéey dañ ciy concentré wu te dañ ci dañ koy jox euh, wàccuwaayam ak ak ak ak li nga xam ne nii moo ci war quoi ba nga xam ne tardement du ci am quoi waaw loolu moom bon yàgg naa ci te am naa ci expérience quoi ba nga xam ne bu dee 500 paires dinaa ko gérer ba ku ci nekk di nga jot sa dàll en si ci jamono ji nga ko soxlaa. te boo ko solee di nga kontaan di ma woo ne ma Bamba kontaan na bu weesoo li nga xamante ne mooy événement yi liggéey bi ñu événement lay gën di dox. est-ce que hmm. bu nekkee événement di nga am ay commande yu bari. waaw bu dul événement nag bon comme dëkk bi nu mu demee rek da ngay jóge ko daanu rek day da ngay day day da ngay jóge ko daanu rek parfois nit woo la nga am benn commande ñaar ñett noonu lay demee quoi parfois nga am benn client boo xam ne daf lay woo ne la prix en laa soxla Mm-hmm. nga defaral ko nga après nga livré ko ko noonu lay demee daal événement daal mooy gën di dox. ci ngeen di gën a loolu moom yaakaar naa ouvrier Sénégal yooyu ouvrier Sénégal yi moom artisans yi ñun ñëpp ci bokk yam quoi liggéey bi moom. Mm-hmm. événement lay gën a dox quoi parce que produit local bi pour mu dox cent pour cent comme ñun niñ ko bëggee il fallait que sénégalais yi di ko utiliser bu baax a baax wàññi importé bi di jënd ci importé bi doon damay wax donte ñun li ñuy liggéey baaxul sax. nañ ñuy corriger di ñu orienter te di jëfandikoo li fi ne. mën nga maa xamal prix daal yi si ñaata la commencé ak ñaata la yem. waaw daal yi nag moom prix moom cent dépend rek. Mhm. man bu dee carax yi dama koy jaayee dix mille franc soo si fermé yi mun naa ko jaayee ba vingt mille franc. Mhm. waaw. bu dee nipier yi mun naa ko jaayee ay quinze mille franc nipier yi sax tey sama nipier yëpp dama ko livré. Mhm. moo tax tey teguma ko fi sax mooy yam crochet yi quoi. ñu ñëw si dàll yi mm-hmm. asan mën nga ma wax dàll bi ban façon dàll la wali genre Hermès la rek dàll bande la quoi boo xolé model bi ni ben bande la sa baaraam yi day feñ fi mo mm-hmm. am ben couture mm-hmm. am fini ay finition quoi gis nga ni def fini ñaari languette dugal ko ci biir xëcc ko mu génn ni ñu bàyyi ko mu tëdd liggéey ko ak terapano parce que térépono bi dafa day rafetal dàll mhm. rebord bi nii lu noir li mooy térépono mhm. waaw def fi ngay teg tànk nii boo xoolee dafa nooy ko waaw gris bu rafet la mhm. parce gris tamit bokk na ci couleur euh, góor yi quoi boo xoolee daal yi moom la plupart gris marron ak noir moo ëpp ci góor ñi li ñuy sol quoi moo tax boo xoolee lépp ci couleur yi yii la gën a utiliser mais couleur yëpp nag dañ koy liggéey moom jaune beige blanc couleur bu ñu waay commandé rek dañ la koy liggéeyal couleur yëpp dañuy am ko quoi couleur yëpp la ñuy am waaw mu nekk daal bu neex doxee nag di leen fàttali ne ngi seen émission à la découverte di waxtaan nag Bamba moom nag euh, nekk na nit koo xamante ne amatul vision maanaam. Mhm. bëtam yi dafa dafa dafa muuru. Mhm. wante teewul mën na la wax dàll bi ban façon dàll la ban couleur la ak li nga xamante ne matière bi nga xamante ne moo composé dàll bi Bamba. Mhm. dàll bi. voilà. nekk euh, dàll boo xamante ne. chaussure la chaussure de ville la. gis ngeen ko chaussure de ville gis ngeen coupe ngeen ko niñ ko liggéey nekk gis ngeen talon bi doo glisser su ferme la gis ngeen laase la laase bi dañ ko liggéey def ko ci aile bi quoi pas ci intérieur bi. Mhm. mais dañ ko def ci aile bi quoi ci extérieur bi lañ ko def. dàll bi loxo moo ko defar. lii loxo moo defar lépp amul dara lu machine laal lu dul raboter talon bi mooy talon bi nii quoi. Mhm. kese lime ko lu dul loolu amul dara loo xam ne nii machine a ko liggéey. contrefort baa ngi nii ci ginnaaw mhm. daal bi dafa am contrefort ci ginnaaw ak ci devanture bi nii parce que contrefort mooy tax daal bi bi génn mhm. gis nga boo xoolee tey bu bu tegaloon bu tegoo woon ci kawam dàll bi lii mun na nor mhm. mais lii du nor parce que dafa mu lu ko téye mooy contrefort mooy tax kubu dal bi mooy génnee taaru dàll bi mais bu dee lii même lu mu nor nor boo solee dal sol kawas comme cuir la day noyyi da ngay gis day day jëlaat forme taxaw mën nga ñoo wax lii ban couleur u dàll la. waaw dàll bi noir la dàll bi dàll bu noir la waaw. Mhm. te du cuir bi tamit nekk na der bu set du jël poussière quoi. Mhm. du téye poussière quoi parce que der yi daf ci am ay qualité yoo xam ne. Mhm. day téye poussière mais yii man damay wax samay fournisseur suñ may liggéeyal daal dañ may liggéeyal ay der yu set yoo xam ne du téye poussière quoi. day neexa net nettoyer. waaw mu nekk daal bu rafet di koy gis ni day ànd ak manches veste yi. mooy costume africain yi. Mm. kii bu la neexee mun nga sol super 100 ak eau yi yi nga xam dañ koy ñëw léegi. Mm-hmm. comme genre chemise yi lay doon. day ànd ak kaki. waaw kii mën na ànd ak lu bari quoi dàll bii nii. waaw mu nekk dàll boo xam dañ ko liggéey nañ ko ba moom confort ko waaw ah, kii talon carotte bi la quoi talon bi la quoi gis sew la quoi mu nekk croisé multicolore nekk dàll yoo xam ne ni fii dañ koy liggéey bon tey exposition bi tey dangeen max dama ko kiiwul sax mais kon dinaa indaale ay dàll yu bari ay carax nu pied dàll yi am tuuti talon talon trois centimètres yi talon ñaam bi yeeg ak dàll yi nga xam ne ay bandal bande bi transparent lay doon fi ngay teg stànk day nekk unique yaa xam couleur bu la neex yooyu yëpp de gars yi fii dañ koy liggéey dàll bi am na confort quoi weñ bi fi war a nekk ñu ngi ko dugal fii ci biir mooy téye sa poids nga xamné ni boy dox do def jeu quoi. hmm yooyu gars koy gis nga tamit genre chabo gis nga ko. Mhm. bu rafet la. Ah, rafet na te bu sol la. Mhm. gis nga dal bi tamit des bi intérieur bi extérieur bi dañ ci def ay trou dafa mhm. comme comme ni dafa tëju. pour bu tàngee. daal bi da bu jamonoy tàngaay da nga koy mën a sol jamonoy seddaay da nga koy mën a sol parce que daal bi am ci biir liggéey nañ ko ba moom confort li ma doon expliquer sànq daal bu amul confort nit ki lu mu rafet rafet du ko sol. bu ko solee day ti sumbi ko. mu ngi nii dañ ko liggéey ak térépono li tamit térépono la mooy li li nekk ci aile bi noir bi mais térépono bii par rapport ak bi nekk ne ci carax yi waaw hmm. mais parce que térépono boo gisee ñu koy liggéeyee nii. design la ci mais en plus day arranger der bi nga xam ne dàll yi du xoosu du gaaw a xoosu quoi mooy buubi nii wala ci eli li yëpp da ngeen koy liggéey en fonction li nga xamante ne moom la client bi bëgg wala da ngeen di xool li nga xamante ne moom liggéey bu gën a mucc ay ngeen defee ko ko waaw bu dee créer nag gars yi mën nañ créer modèle dugal ci net bi waaw client bi tam moom mooy xool bu ñëwee xool choisir ci modèle yi mhm. mooy xool lu ko neex ma dégg nga ne da ngeen koy créer dugal ko si net bi kon mën nañ jàpp ne vente en ligne ngay def wala da ngay yor sa boutique boo xamante ne fa ngay jaay. waaye sant actuellement nag dañuy def vente en ligne wa sant actuellement ni moom vente en ligne na ñuy def quoi képp ku soxla suñu produit rek boo wootee ci numéro yi rek ni nga ko bëggee. ak mhm. pointure yeeg couleur yeeg yëpp dañ la koy liggéeyal. lan ngay ñaan li nga xamante ne mooy nguur bi yees bi si jëm si lii ngeen xamante ne mooy consommer locale bi nga woote. ah consommer local nag ndaa nekk loo xam ne bépp dëkk fi muy mhm. rawee ak lii tax dëkk bi économique bi baax dëkk bi bokk ci dëkk yi nga xam ne ni dëkk boo am doole la sur le plan économique day fekk nag production ñuy produire lu bari ba pare di ko consommer di dema dema dem nag bay génnee di jaay ci biti te loolu nag day li njëkk mooy nit ki dangay ngay gëm sa bopp gëm sa bopp mooy li nekk ci sa réew te yàlla séddu la ko nga mm-hmm. nga koy jëfandikoo mm-hmm. te sunu artisan yi ay jàmbaar lañ mm-hmm. donte nag matière premier bi amuñu ko mooy talon wala kol wala cuir cuir yi da di bëri nañ sax ay xew-xew yu fiy am Sénégal kon ñun amuñu problème mu der tey buñ jàppale woon ba deri ñu koy liggéey fii ci biir réew bi nga xam ne doo dootuñu ko jëlee extérieur lépp fii lañ koy liggéeyee kon day gën a yombalal sunu artisan yi liggéey bi dañ leen war a jàppale bu baax seen budget biñ leen di natal ci ministère bi dafa ndaw état du Sénégal da ko war a yokk bu baax a baax xaalis bi ñu def ko ci secteur bi gën a jàppale artisan yi bu baax a baax su ko defee produit bi ñu mu gën a bari nga xam ne local bi euh, importe bi dañ koy wàññi su ko defee rek économie réew mi dina gën a bouger te dina crée emploi parce que millier bi ñi ci nekk di ci dund bari na lii ñi ci nekk di ci dund bari na te lii sénégalais yi ay jàmbaar model modèle boo leen yónnee dañ koy liggéey malgré nag amuñu yenn moyens yi mais dinañ góorgóorlu ci moyens yi ci moyens yi ñu am ba liggéeyal la dàll boo xam ne buñ la wanee photo importé bi wan la dàll bi doo ko mën a méngatle. loolu moom ba ma ko gisee bi mm-hmm. dama jàkkaaroon ne dàll Maroc la. waa bii nag waa moom mbarakis la ba tey sax da ngay gis ne sunu artisan yi ay jàmbaar lañ boo xoolee ñoom mbarakis yi ñuy liggéey forme bi ñu ko liggéeyee nii ni mel nii mm-hmm. du dañ ba ba muy yàqu parce que dañ koy liggéey liggéey bu jaar yoon boo xoolee tamit ci biti biti dàll bi crêpe la gis ngeen. Mm-hmm. am boo comme mooy li mu la wax rek ñun suñuy liggéey parfois dañuy bàyyi xel environnement bi dàll bi tey mun nga ko doxee ci suuf ak ci ay xeer. Mm-hmm. bu dee yeneen bu dee importé bi ñoom seen talon der lay doon. Mm-hmm. boo doxee fu am xeer ak yooyu daf lay gaañ. bu dee ñun nag mun nga dox ci ay xeer te doo ko sentir parce que lii mooy tax. te dàll bi am na confort. waaw nekk na braquis bu rafet ci biir tamit dafa nooy nice te kiwir la waaw couleur yëpp daf ci am ci xeetu braquis ba tey dangay ngay gis sur artisan yi ay jàmbaar nañ te lii yëpp loxo moo ko liggéey waay mhm. mu ngi noonu. Euh, Bamba lan mooy nekk li nga xamante ne mooy sa dernier mot de la fin. waaw sama dernier mot de la fin xanaa santaat bu baax a baax sant waa kër gi ñu nekk tànta sunu maam bu baax la waaw di santaat ñoom Kumbaak ñoom ñëpp di sant Assane tamit bu baax sama moom moom yàgg nañ ba ñu amee ba tey dix ans ñooy ànd yàlla def ne kon ànd bu yàgg la quoi te yii yëpp ma nekk ginnaaw yàlla moom la saa yu ma wàccee yoon moom mooy corriger na ma nii du nii nii la samay mbiru bopp moom moom moo koy waaw di santaat baax sama famille ku mel ne sama papa Mor jiite mhm. ak aw Faal mooy sama yaay sama soxna ak samay doom mhm. maa ngi santaat ñëpp ak sama famille ñoom Pape Mamdak Pape Menga di sant ñëpp rek Mansour Faye Fallou alaaji boo yëpp ñiy jàpp ci liggéey bi bu baax a baax a baax waaw ak samay fournisseur ku mel ne Jacques maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax Baye Zal maa ngi koy nuyu ñoom Laba waaw di ay Ibrahima Mbow ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu sama fournisseur yëpp maa ngi leen di nuyu ñoom laay mhm. ay jàmbaar lañ franchement am na benn complicité buy dox sama diggante ak ñoom ci liggéey bi ba moom saa yu ma leen fëggee rek mhm. ak liggéey bi moom bu jaree xeex sax damay xeex ak ñoom ci liggéey bi <laughs> waaw man moom noonu laa mel liggéey bi moom dama ciy dem ak parce que lépp damay bëgg client bi rek ma satisfaire ko mu kontaan kon yéen waa Kéwoulo ñu ngi leen di nuyu di leen santaat bu baax a baax di leen ñaanal yàlla seen télé bi nekk télé site internet bi dem ba nam ngeen dugg ci canal bi di ñaanal Babacar Touré tamit jàmbaar la dañ koy topp di ko suivre bu baax a baax a baax a baax wax dëgg fa yàlla di leen santaat bu baax di leen masaw tamit ci déplacement bi xam nañ ne fi ngeen jógee ak dëkkuwaay bi xataay bi ni mu xat yombul kon di santaat bu baax di sant ñëpp rek képp ku ma fàtte rek maa ngi lay sant bu baax a baax a baax. amee internet Kéwoulo TV lii leen leen indiloon seen émission à la découverte amaloon waxtaan ak ki nga xamante ne mooy wuyoo turu si Bamba. mom nak yalla dafa def ne da muur ay bëtëm mu dab ko way téwut mu ngi participer ci développement dëkk bi di leen lay lon c'est mission découverte di leen dig dajé ba benen ak si découverte